asalaamaaleykum gis nga lex booy ful di ko raay jékki-jékki ni ci mbét réel am na lu xew gis nga xale yu jigéen yi ma gis ñu ndaw ndawaan yi moom ku ci takk te amoo xulu muñ di leen pattal wala nga làggi leen loolu moom maa ko wax xale yu jigéen ma gis ku ci takk mënoo muñ di nga leen gaañ toog di ko réccu dañoo saf làmmeñ war baat moom xalaatatuñ ko war baat seen dëkk xalaatuñ ko amuñu kilifa amuñu sutura loolu lépp mu ngi ci ñoom xale yi ko ni ci benn mun la 152 arrière di la xaatamee sa jëkkër te léegi li gën a bari nag moom xale yu jigéen di ko séyee mu bari lool mooy saaga ndey sa jëkkër léegi moom dañ koy damoon sa jëkkër bu ne benn nga ko sa nangam taanu taxaw di ko xaar loolu ban sëy la te bu la xuree nga génn taal télé rajo lii la def lii la ma def d'accord dóor kenn du ko nangu jigéen kenn du ko laal boo yoree mënatoo yor dellool ne la joxoon ci njëkk ak teraanga mais lan nga def ba ñu dóor la dama bëgg nga ni lii laa def lii laa wax mu dóor ma en général nag laa wax ñëpp parce que lii kii wax bari na ñu koy dund ci biir kër yi jigéen góor danga koy jox cër baye boo mu wayee di baye boo mu tuuti baye boo mu ñàkk mais sa jëkkër la moo la takk indi la ci kër jëkkër danga koy respecté jox ko baat waaye sa jëkkër bu nee benn ngeen ko 52 lu mu ñaawle wala lu mu ñàkk nga xasee ko ko yàq ko malangaan faalewoo ko bu la laalee nga wëdd ni ràcc ci kaw nit ñi arrêté leen bu ngeen mënta sëy ngeen dem seen ndey ñu jàngal ni ñuy sëy sëy dafa am yoon waxuñu jaam waxuñu def lu metti mais ki la fi indi nag nga jox ko cër bi moom c'est très normal ku ko ci deful sëy dina yàgg yëngu da ngay respecté ki nga nekkal jëkkër danga ko respecté yow jàmbur sax boo nekkam danga ko war a waxatumaa la ak sa jëkkër ji la takk indi respecté leen seen jëkkër yi ngeen sëy te yàlla tax saaga ndey sa jëkkër pour lan xas sa jëkkër pour lan te am sutura nag ndax bu doon benn fan dund ngeen ko lu neex yàgg sa jëkkër ak ku mu mën a doom waaye léegi problème bu amee li jëntiku seen biir mooy dëgg nit ku baax da ngay am sutura sëy sutura la